ca màggal gu nekk nag boroom réew ma daan may mbooloo ma ñu tànn kenn ca ña ñu tëjoon mu daldi leen ko bàyyil fekk booba amoon nañu ku ñu tëjoon ku siiw te tudd barabaas bi nga xamee ne daje nañu nag pilaat laaj leen kan ngeen bëgg ma bàyyi ko barabaas walla yeesu mi ñuy wax kirist ndaxte xamoon na ni kiñaan rekk a taxoon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 fekk na sax yëngu-yëngu bi gën a am doole mu daldi fab ndox raxas ay loxoom ca kanamu mbooloo ma ne leen seet naa ci deretu ku jub kii nu ngeen xam def leen ko ñépp tontu ko na deretam dal ci sunu kaw ak sunu kaw njaboot noonu pilaat bàyyi leen barabaas mu dóor lu yéesu ay yar jébbal ko ngir ñu daaj ko ci bant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 mu xamle lu tax ñu rey ko mu ne kii mooy yéesu buur yawut yi booba it ñu daajaale ak moom ñaari taskati réew ma kenn ca ndajooram ka ca des càmmoñam ña fa doon romb di ko xas di wëcc seen bopp ndax sib ko naan yow mi mën a toj kër yàlla ga tabaxaat ko ci ñetti fan musalal sa bopp boo nekkee doomu yàlla wàccal ci bant bi saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ak njiit ya it di ko ñaawal naan waa ji musal na ñeneen te mënula musal boppam ndegam mooy buuru Israyel na wàcc léegi ci bant bi nu gëm ko ginnaaw dénk na boppam yàlla kon na ko yàlla musal bu ko soppee ndaxte nee na may doomu yàlla taskati réew ma it ya ñu daajaale ak moom di ko xas noonule la tàmbalee digg bëccëg ba ci tisbaar réew mépp lëndëm noonu ci wetu ñetti waxtu yéesu daldi woote kàddu gu dëgër naan eli eli lama sabaktaani liy tekki sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ñenn ña ca ña fa taxaw nag bi ñu ko déggee ñu ne mu ngi woo yonent yàlla iliyaas ca saa sa kenn ci ñoom daw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 jëm ci pilaat ñu ne ko boroom réew mi fàttaliku nanu ne ndaxkat booba waxoon na bi muy dund naan gannaaw ñetti fan dinaa dekki danoo bëggoon nag nga santaane ñu wottu bàmmeel ba ba am ñetti fan ngir bañ taalibeem yi ñëw sàcc néew ba te yégle ne dekki na bu ko defee ndax bu mujj boobu dina yées bu jëkk ba pilaat leen am leen ay watukat a ngi nii demleen wattu ji ko ni ngeen mane noonu ñu dem tëj bàmmeel ba bu wóor ñu tey ca doj wa màndarga teg fa wattukat ya